wante xam ngeen ni waaye xaaj ma dikke bi léegi mi may wax ñu xaar ba julli ba pare wante ma ne ko comme dañu jàngoon xayrul kalaami ma xalla wa dalla bu ko defee dégg nga sëñ Pape Moutalla bu ne naa wax ba julli jot rek wante lu mu new néew rek muy kàddu barkeelu xanaa ma wax ni nuyoo bi yépp ñu fi war nuyu jël naa nuyu bi teg ko ci benn jëmmu mooy sëñ Murtada Seck ibnul Khalifa sëñ Madi Gabram yàlla nee na rahmatullahi rabbil alamin ma jël nuyoo bi rek nuyu ko ndax xëy na ay 4 minutes wala 5 minutes moo fi des loolu nag lay bañ léegi li may wax rek mooy mbokk yi. yal na yàlla wàcce àjjana suñu xarit ba sëñ ma dikkee borom yàlla nee na suñu sëriñ képp ku ko xam yal na la yàlla wàcce àjjana ku ko bëgg lii yal na la wàcce àjjana àjjana nag mbokk yi moom ak kër la goo xam ni ak kër la goo xam ni waa ceene ba moomuñu ko àjjana ak kër la goo xam ni waa ceene ak kër la goo xam ni waa Tuubaa moomuñu ko àjjana ak kër la boo xam ni waa Tiwaawan moomuñu ko àjjana ak kër la goo xam ni waa Nimsaat moomu ko xam nga ku ko moom rabbul izzati wal jabarut xam nga ñan la koy dugal almuttaquuna almuttaquuna mooy ñi daan def ndigalam bàyyi ay tereem ñoom la koy dugal yal na yàlla def nag nu bokku ca ñooña xam nga lu tax ma xam nga lu tax ma wax loolu saytaane moom mi ngi am ay ñallam ay ñallam yu bari yoo xam ni bëgg na ba ma xarit ñi dugal leen fa jaare ko ci turu diine mooy lan mooy lépp loo nekk te dëppoowul ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw ñal la du du siraatal mustaqim waaye aw ñal la te àjjana siraatal mustaqim moo ko jëm ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa la daalin mbokk yi surtout sunu bokk jigéen ñi yal na jigéen ñëpp dem àjjana yal na jigéen ñëpp nekk ay or ay ni wante wante boo sëggee ci téere yi gis alquran li mu wax ni nañ ko def gis sayyiduna muhammad lim ni nañ ko def xool nit ñi da ngay tiit da ngay wax nag eh, ku mu neex santal yàlla ku mu neexul toog nga xam ne loolu yàlla dogal ndax dafa bokk ci principe bu ma sëñ ma dikk borom yàlla na yaree mooy su may wax wax li yàlla wax wax li sayyiduna Muhammad wax ndax moom sëriñ ma dikkee wax naa ni képp ku ma sa ànd ak moom lan gën a bañ mooy nga ànd ak te yàlla taxul moom lool mësu ko d'accord lu tax mooy ku mu àndal daa bëgg bu ëllëgee nga ti teela teel a dugg àjjana miiri miiri yàlla ko defal am na loo xam ne ab taalibe waru ko def na loo xam ne taalibe waru ko mooy lan mooy ab sëriñam am problème ëllëg ci kanamu yàlla te taalibe bi moo ko yóbbee loolu taalibe bu ne war nga koo daw taalibe bu ne war nga daw sa sëriñ ëllëg ñépp siggi ci kanamu yàlla wuti àjjana sa sëriñ am problème mooy fi yàlla wax ni jaar fa jaaroo fa moom sëriñ fi mu la wax ni la jaar fa jaaroo ko te ngay won ni ko man taalibe la yow li ko won ci saayir mooy taalibe nga waaye lim la digal defoo ko lim la tere boo sëñ Pape Mourtada Seck li ngeen koy gis nii ñaar ngi yoo xam ne ku ci nekk boo yaakaaree ni séq ngeen dara am ngeen benn connexion nax nga sa bopp sëñ Pape Seck mii ngay gis nii ñaara ngi yoo xam ne ku ci nekk boo yaakaar ni am nga ak moom connexion yaa ngi nax sa bopp mooy képp koo xam ne nunguwoo jaamu yàlla képp koo xam ne li ngay lekk dafa xaraam tegoo ko fu nga war a teg fu la neex wuti alal ñaar yooyu ku mu nekk ci yow yaa ak sëñ Pape Seck amul benn connexion ma wax xam nga lu tax mu bañ ko mooy moom buggul am problème ëllëg boo xam ni li ko waral mooy ñi mu yilifoon ci biir ñi mu yilifoon ñoom ñoo doon def loolu yàlla ni ko yow ñii ci sa njaboot la te ñoom lii lañ daan def loolu lay bañ te loolu xoolal alaaxira dafa am problème bu mag bu am mooy lan mooy nga ñëw ba alaaxira koo yaakaaroon ci yàlla pour mu jàllale fe ngeen taxaw ñu sàppe nga seen ko ci ginnaaw yow taalibe bi nga jiitu ko yàlla ci yàlla musal wala bokk yàgg sa sëriñ ngeen ngeen yàq xoolal gis nga jigéeni àjjana yi amu ci benn jigéenu àjjana ku bëgg teel a dugg àjjana suba teel te yow li la yàlla sant ci say cër doo ko def mooy ngay muur say cër loolu alxuraan la ko jàng mais sëriñ Madické lu ñu koy dàkkantele mooy borom yàlla nee na bu ñu nax suñu bopp mbokk yi borom yàlla nee na mooy li yàlla wax lay wax li yonent bi wax lay wax loolu mooy borom yàlla nee na borom yàlla nee na mooy li yàlla wax lay wax mais Seydina Muhammad nday Aysa yéen ñëpp jàng ngeen ni biñ ko laajee ni ko kan mooy rasulullahi loolu la wax daf ne kaana xulluxu alquran ñu ne ko Aysa kan mooy Muhammad mu ne alquran ñu ne ko lu tax mu ni li alquran wax di def leen ko lay def lim nii ba leen ko da koo ba moom alquran bi sotti la woon moo sëriñ ma dikk ram yàlla nee na mooy alquran xam nga tax mooy boo jëloon di topp lu dundam lim def ci kaw suuf erreeru sëriñ ma dikk ci diina doo ko gis boo doon topplu erreeru sëriñ ma dikke diiru lim def ci kaw suuf nga koy topplu ku la neex doo ko gis doo ko gis xam nga lu tax mu man ko mooy moom li alquran wax la nekkoon moom la daan digle moom la daan def bu ko defee man li may wax rek mu gàtt mooy na nanu def très attention dëgg la Seydina Muhammad moom alaaxira jàngeen ci téere yi am na ñu koy séen jóg wuti ko yonent bi ni bërit di leen kar yàlla ni ko dellul ginnaaw lu xamul koy waral yàlla ni ko ñooñu dañoo wëlbati affaire yi yow fa nga jaaroon ba nga ko jógee ñoom dañoo def la leen neex loolu mu ngi ci téere mais bu fekkee Seydina Muhammad mooy jóg bëgg recevoir délégation yàlla ni ko dellul ginnaaw mais keneen tax nañuy wax xoolal affaire bi diine ji buñ ko defee ni mu niñ koy niñ ko sentiré wax naa ni du li nga waaye li sant la diine ji du li nga sentir waaye li la sant la bu ku nekk defee li nga sentir ku ne di def li nga sentir alxuraan dootul am benn place dootul am njariñ ci ñun day day jaxasoo te loolu mi ngi bëgg a bari ci ñun ñëpp nag ñun ñu ngi bëgg bari ci ñun mooy ku nekk di def li nga sentir ngeen baal ñu fi naw mihi wanti baahihi